سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم awuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi déglu di ñu seetaan tey nag ñoo ngi fii fi Taïf tey nag li waral jotaay bi xam ngeen ne mooy conseil fédéral bi nga xam ne euh, fédération des groupements religieux et culturels di Cheikh Ahmadou Bamba euh, ñoo ko fi amal euh, ginnaaw bu ñu jógee ci congrès ba nga xam ne moom la ñu mujjoon amal nekkoon juróom-ñeenteelu congrès fee ca Touba ci atum 2019 conseil bi nag mooy conseil bi jiitu ginnaaw congrès boobu tey nag ñu nekk fii bi ak le 2 maanaam diirub ñaari fan. te xam ngeen ne rek section yi gis ngeen ñoo ngi euh, ñëw nag nag xam ngeen ne fédération bi dafa séddale ko ci ay section toll ci fukki section ak ñett ci biir réew mi fu ci nekk nag euh, ay conseil euh, wala ñi nga xam ne sinte ñoom la ñu bi ñoo ngi fay ngir ñëw fekke ci jotaay wala fekke ci ndaje moo am solo mi ñuy amale fii fi Taïf xam ngeen ne gis ngeen kilifa yi président fédération bi Serigne Moustapha Mbacké Asuburi moom Serigne si Amadou Mbacké Gaynde Fatma yegg si na ak mbooleem ñi nga xam ñoom ñoo aju ci bureau fédéral bi defee xam ngeen ne ni ki tey mooy doon premier jour bi doon ouverture bi nga xam ne moom la ñuy amal secrétaire général bi gën a ñëw ginnaaw bu ñu defee mise en place bi lire rapport wala di nga xam ne si ne moom la ñu liggéey ci diiru at mi lañ ci jot def ak li nga xam ne moom la ñu dëgmal ci suñu kanam muy résolution yi nga xam ne joxoon nañ leen ko ci congrès bi ñu génn ca Touba su ko defee ci bu ñu loolu jeexee commission yi dañuy daje ngir amal atelier yi waxtaan ak càmbar doxee li nga xam moom la ñu weesu waaye at li nga xam ne moom la ñu dëgmal muy feuille de route bi nga xam ne joxoon nañ leen ko ci congrès bi ñu génn ca diwaanu Touba waaye bu ñu xëyee suba tamit dañu dajeewaat commission yi indi li ñu fanaanee réunion ñu dajee euh, càmbar ko xool li nga xam ne moom la ciy tënk fas yéene koo doxal jëmale ko déwén tey nag mooy premier euh, jour bi doon première février euh, ci 2020 suba doon ñaareelu fan bi euh, ñu war a jeexal li nga xam ne moom mooy conseil bi kon mbokk yi ñu seetaan di nga topp incha allah lépp loo xam ne dana xew te bàyyi ko fii ci conseil bi dañee ko digtal ci seen Zik Internet Wilaya TV wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa du leen jarfal ndaxam Mustafa Tuubaa ñaagaat na leen ngaayu ya ahla mbaakol bàkku leen Cheikh Moustapha bégalaat na leen bi kalaami am ngeen médaille